mel ni walaf nan ku lak mburu di nga tuddu dekk jëm ju tedd ju yu ju bax ji dib julit bëgg yalla lol te diko jaamu moy dox di xeeñtu ba am lan tek sëñ Asan ci mom bis bi it sëriñ bi lu ko lol mu ne ko taxawal na fa lo xamni suma sayon nga ag fa muy néegub yàlla bi mu ko waxee sëriñ bi bu ko waxoon leneen lu dul lii sëriñ bi du ñëw day yable waaye barki démb ba tey amul jàmm amul salaam soññ na nu ba tàyyi ci na ngeen bàyyi xel bis boobu nga xam ne ca laa war a dem muy fal nu war a jullee ji tisbaar ca jàkka ja une heure et laa joxenteeg ñoom rendiw bëgguma dara wàññi ko ca ba bi muy génn këram lam fa bàyyi ciw gan fa tabarkalla waaye koo xamul noo koy def namu la def moo tax nu lay ñaanal nga yàgg te wér loolu sëriñ bi bu la jàppoon benn su ëllëgee boo desee dina la jàppaat fukk ndax li mu bëgg dala ca fekk daara la fa def def fa teen tabax fa jumaa yor jam ñi di leen dundal kon bu gisee ku ne ca yoon woowee sëriñ bi day bëgg ànd ak moom lëkkaloog moom kon ma ngi lay ñaanal yàlla na nga àggale sa sago bi jaayi Seydina Muhammad kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waay de boppam yàlla nag du weddi boppam ku ma tabaxal lu tol ni tàggum picc tudde ko jàkk boo ëllëgee ma defal lay njëndi lu tol nii ku ko tabaxal yàlla jaamu yàlla di fa jaamu yàlla nasam xel dal ndax koo bëgg a yóbbaale géew boo ëllëgee di ko yóbbaale yàlla na ngeen ko ràppal te yeesalaat ko rappalaat ko yeesalaat ko loolu la ko sëriñ Saliou Mbacke mi nga xam ne moo ko joxoon ndigal mu tabax jumaa jee ci ëttam ba ba mu ñëwee jébbal ko caabi ji Serigne wi da koo xamal ni ko lama la doon liggéeyloo noppi na jébbal nga ma ko nangu naa ko daalu koy dénkaat maa ngi ñaan sans borom jaamu gu fa waay jaamu yàlla na ko yàlla nangu maa ngi lay dénk jumaa ja bu ko rab bu mu rab saa bu ràppee na nga ko yeesal soo fa duggee da ngay defee ni tey jii la woon jumaa ji sant nañu imaam sant maamun sant ñi nga xam ne ñoo ànd ak yow jumaa jàkka ji sant noddukat yeeg ñi liqaam ak ñi jot li ñëpp sëriñ bi nee na xolam sedd na guy ci taxawaay bii nga xam ne def na ko tey ndax amul lu gën a kawe lii amul lu gën a rëy ma ngi leen di jégalu wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. sëriñ bi nee na li mu ciy bu leen nuyoo nuyoob lislaam muy asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. bu baax suñu ci barab nee na ñoo ngi bég bu baax a baax ci. teew gi ñu teew ci barab bu tedd bi dafa ñaar ñoo sëriñ bi nee na dafa am ñaar ñoo xam ni. bu yàlla kaw bu yàlla doon am kër ci kaw suuf ñoom lay doon. donte doonte nag yàlla moo moom asamaan ak suuf waaye diggante asamaan ak suuf nee ñun dey ñoo ko fi wutal kër nee moom yàlla nag mu nangu ko wax ni def leen ci sama adresse. wax ni def ci sama ci kër gi. nee na ku nekk ci ñun booy wut kër. nee da ngay wut aw kayit. def ci numéro kër gi. def ci kër gi. diw moom kër gi. nee Moussa mii ak fi mu dëkk. nee comme Moussa mii ak fi mu dëkk. ñu xam ni kat kër gii mooy kër Moussa. ne bi ñu wutalee yàlla nag barab. ne numéro kër gi. ne turu borom kër gi. mooy wa anal masajida lillahi ne noonu la kër gi tudd. ne jàkka moom yàllaa ko moom. ne bañ kenn ku fa xëccook moom. mbaa ñenn di fa werante. su waxee bañ ko fa xëccoog moom. nee su ma waxee bañ ko fa xëccoog yàlla. fi ne buuru nee fi ne buuru réew mi. bu déggoo woon ak nee bu déggoo woon ak waa Interpol. ci ku ñu war a jàpp ci ku ñu war a su koo ko dawee dugg fii. nee su koo ko dawee dugg ci jàkka ji. amatul droit jàpp. nee moom day amatul droit jàpp ko. nee suñu xamee diine dëgg la. dëgg la. ne amoon luñ la war a téye fi mu ne amoon luñ la waroon a téye fii ci dëkk bi. ne nga daw dugg ambassade France. doonte ambassade baa ngi biir Sénégal. donte ambassade baa ngi biir Sénégal. ne dàq day duñ dinañ jox war ma barab ba duñ fa dugg. ndax France nga nekk. ne bu dee am bu Amérique nee na bu dee feneen noonu. waaye kon nag wa annal masajida lillahi ne ambassade sunu borom ci kaw suuf ne mooy jàkka waaw akbar ne kon nag na ngeen xam ne buur moom suñu fee kenn di ko jàpp ne su xamee diine allahu akbar ne bu buur paasee ku mel ni imaam mii toog ak moom mii toog ak keneen ci karc bi ne kenn amul droit taxaw fii di xëccoog imaam wala yeneen xew-xew ci néeg yàlla moo tax falaa tadduhum maa lay ahad ne kenn sëñ ta wax ni moom moom barab bi ndax turu barab bi tur bi ci ne mooy lillaahi wa anal masaajida lillaahi

ne deuxième partie bi. borom bi xajul ci bi. borom bi nag xajul ci néeg bi moom yàlla. ne ñun dey ñoo baax. jënd terrain tabax ko. tuddee ko kër yàlla. ne ku am kër ku ne. di nga ci yendu. mbaa nga fanaan ca. ne te nit fu muy yendu. mbaa mu fanaan fa. dafay xaj te yàlla xajul ci jàkka ji. ne yaakaar naa ni imaam war ngaa dégg loolu. mu am feneen foo xam ni. ne am feneen foo xam ni. moo gën a tuuti fii. moo gën a tuuti fii. fuuf nag. waaye ëpp ko nag. ne foofa la yàlla xaj. ne te ab xol. ne ci xolu sëriñ Moussa mii. ne foofu la ñu ñëw tey. ne da noo dalal fii rek. ne tudd kër yàlla. waye yalla mom ci xol la xaj Né xol nee moo gën a tuuti jàkka nee defe ni fi mu ne benn jàkka bu kër yàlla nee ci la nangami xol li nekk fii nee ay xol bari na fi de nee te ben xol moo ëpp jàkka nee donte moko ko tuti kon yalla ci xol rek la xaj nee xaju ci nek bi nee ndax ku xajul aduna xajoo ci ay miir nag waaye xol donte ci dënn la ne nee daa ëpp ay miir moo tax yàlla xacca nee ci xol yi la ñëw askey nee sëñ Moussa na nga yëg ni sunu jëmm yu ndaw yi nee seet siwu la de nee seet siwul imaam seet siwul quartier bi sunuy xol moo la seet si nee loolu mooy li fi ne nee kon ñaar yooyu munu leeral léegi néeg yàlla ak kër yàlla néeg yàlla mooy fi fii waaye kër yàlla mooy xoli jaam ñi fi lan ñëw lool la lan lay siyaare sëriñ Moussa ne dal ci néeg yi ak siyaare la suñuy xol ne di bég lool ne ci njàmbaar gu réy gi nga def nee naka jekk sëriñ bi nee woon na la dina la seet si waaye ba nga mënee tabax nañ fa juma nee loolu nag moo tax nag amatuma sago ci ñëw gi ma ñëw fii nee moo ma sawarloo ci ñëw gi ma fi ñëw nee yàlla na xam na ko ma ni ñii ñëpp nan fa julee ji tisbaar sallallahu alayhi wa sallam nee te yàlla moo ko wax ni ko yow maa yantixu anil hawa in huwa ilaa wahyun yuuhaa ne loola lu mu wax moom dëgg la moom yàlla nee na ne ku jullee foo mësta jullee boo ñaanee yàlla yàlla nangu ku ñaanee yàlla foo ko musta moye ne boo ñaanee yàlla nangu la ne fii moom tey leen fi mës a kon lu nu ñaan rek yàlla nangul dina ko nangul ne fi tey leen fi ma sa jaamu kon bu nu ñaané mu nangu ne so gisé ñaan baax Lol lol. waye ñaan lu moko gën ne lolou lu jere deglu la ne amna ñu contre ñaan lu nako ko defal seen bop waye ñaan dañu wax ni foo mos ta moye yàlla ne te ku ne saw làmmiñ mooy nga ci yàlla ne kon boo ñaanee yàlla yàlla lànk waaye làmmiñu jàmbur kenn mënu ci amoy yàlla moo tax buñ la ñaanele yàlla nangu ñaan ga dëgg la dëgg la ne kon buñ fi teewee ne sunu yi yii yéen mosu leen cee tooñ nag yéen seeni làmmiñ ñun mosuñu cee tooñ kon bu nu ñaanantee

ne nun ak yéen noo wax ne yàllaa ko moom nun du noo ko wax ne day laaj de ñoo ko wax ne nun ñu ko wax nag ku ne fonk nga kër gi sa tourné te kër gi sa tourné bi nga ko amagul borom kër gii nga doon ñaan mu yàlla mu may la kër bam la mayee terrain borom kër gii nga doon ñaan mu jàppale la nga defar kër ga ba nga noppee borom kër gii nga doon ñaan loo ca def ak koo ca def ak ñoo ca def loo ca def mooy lu ko tabax koo ca def mooy soxna yi ñoo ca def mooy doom yi nee ñëpp ñun ñii kat ñoo ko ñaan yàlla nee ñi fi ne ñii ku ne borom kër gii may na la loolu ne moom nag yàlla ne kon këram bu buñ ko wootelee nu gaay war a def bu doon jaam akub jaam da ngaa war a gore ne ku la defal nga defal ko nee te borom kër gi defal nanu nee kon nan koy defal luñ koy defal di fi dajaloo pour waxtoom yi ci waxtoom yi di ko jaamu ne dina neex yàlla lool waaye nekk ci koñ bi nag jàkk ji nodd nga dégg xëy ala sala xëy ala fala ba nopp ba ñu ñëw ne trahir nga yàlla dëgg la ne ku dégg rajo bi te ñëw waa ji di nodd ne kalaame na la ak yàlla ndax yéena ko fi teg nag ni ko wooteelal yàlla wa man ahsana xawlan minan miman daha ilala ne ki gën a baax li muy wax ci waxkat yi mooy kii waxal yàlla ne kon dey moo fi gën a baax lu muy wax moom noddukat bi ne gannaaw moom kii nga xam ni bu jaamu yàlla yépp daje ne dafay représenté sunu borom donte jaamab yàlla la ci jaamu yàlla yi xam nga yàlla moo tànn daawuda ni ko def naa la ngay sama représentant yaa daawuda inna jahal naaka xalifatan fil ardi li ma waroon def ci nit ñi defal ma ko fahakum bayna naas atteel ma leen mais def ko bil haq ne loolu la wax de daawuda taxaw bu yàlla amee mbubb mu sol mbubum yàlla di wax ak jaam yàlla yi di ko atteel ci ndigalu sunu borom ne kon moo wuutu yàlla ngeen baal ma Mouhamed Sow la tudd moom mi ne ñi nga fi ëppi at bariwul de ne ku tedd kii sunu wet mën na laa jur ne féetale ginnaaw nag nga féete ko kanam ne kii ëppoo ko wërsëg féetale ginnaaw nga féete ko kanam yow nga jàkkaarloo miir bi nag muy suuf nag ak ciment ak xeer dong ne lii ne ci réew mi leen ko liggéey waaye am na orma jun leen jox ne benn bis bu tudd àjjuma ñépp daje fi ngay kenn ci ñi fi daje génn ci bunt bii ne ku ñëw fii ne ñëpp da naan pat ku nekk ne ca la nga ba mu nekk yow rek yow rek yaa tëll ñu tudd yàlla ne te yow doo yàlla <laughs> ne imaam dong mooy génn ñu ne allahu akbar ne noonu nga tudd ne tuddoo ko de nee te allahu akbar moo yàlla màgg na nee nga génn ñu tudde la ko nee yow booba nekkatoo de yàllaa fi ne nee nan xàmmee waxi nit ñi léeg-léeg nga gis koo xam ni bu waxee baat ñu tudde ko cercle nee est-ce que loolu cercle la déedéet nee nga génn ñu tudd yàlla nga taxaw nee te ñu ñëpp kenn tudd ko nu noppi ñëpp toog yow képp ngay wax ne te kenn sëñ la question ne loolu yàlla képp moo ne ku dul yàlla loo wax gaa yi teg ca leneen waaye yow boo ba bi jeex du tontu kenn du Gantu, boo noppee sax doo wax ndax d'accord wala da nga da nga nuy rek ne boobu sañ-sañ foko foo ne yàlla képp moo ko sañ ne mbubum yàlla mi nga sol moo tax boo ne salaamaaleykum ba génn fii koo saaga nag dana fayu koo yónni su ma dem su mënul lànk na diggante boobu no la jox yow yaay kan ne sunu borom ne tooyo doo yàlla ne bu la nit ñi solele mbub mi jaam dafa am fu muy nuru boromam ne parce que yàllaa ko fay teg am foo taxam ni jaam képp lay doon nee lu jar a la moo tax bi ñu egsee léegi ne fii bari na fi ñu mokkal alxuraan kii toog cent ci la bokk ak kii ak ñeneen ne ba noppi jàng waaye kenn sañu fay jiite nag ku dul yow mii ne lu tax yaa fi nekkal yàlla ne loo rekk a tax ne ñu jox la cër boobu nag di la siyaar bu baax di la ñaanal nee di soñu waa koñ bépp nu fonk jàkka ji ak daara ji nee ci la sunu njariñ ne di la naw nee ba noppi nag di la gën a encouragé nee fii nu jëm bu nu fi jógee nee na loo gudd gudd aw fan di nga fi ba lii nga def ah kër ga di ko fi bàyyi dëgg la la nee te balaa am ay fan nag nee nu séddoo ko nee boo mënul dara nee séddoo boo mënul dara nag nee amaana sax nit am ca xam ni soo ko doon may doo ko may lu toll noonu laa ilaaha nee te doo ko mën a faj nee kër gi lu mu taaru taaru nee benn instant rek benn néeg rek benn lal ci biir lal bi benn parti ne moom nga fa am ne kon loolu du alal ne lii nga def mooy alal ne kenn du ko doon nag ku du sunu borom walillaahi miraasu samaawaati war ardi ne lii la yàlla am nga defal ko sunu borom ne lii mooy sa alal ne fii ne booy bàkku deel wax tabax naa jumaa waaye am naa kër du ay wax am nanu kër ngay wax da ngay dem keneen ñëw keneen ñëw nee ko participer wul sax nee ca kër ga la bokk waaye lii nga am yow Moussa est nee yàlla na yàlla saxal nee te yàlla yokku la yokk ñi fi ne ak ku ci barkeelu ku ne jëf ji na ñuy julli tey joxe ci jàkka ji nee man day ñeenaa bu dee mooma bu dee imaama bu dee ku baax kii suñu wet la nee ku féete woo facture courant bi man ñeenaa ko ñee kii bale ñee kii lal moket ñee ñoo ñëpp nee ci service suñu borom la nekk bu ci kenn man kenn ne foofu la affaire bi ne waaye la ca des waaye fi ne étage ne ba am resor wu doo ca kaw ak i tibil ami kaas bala tabitu